internetu euh, Sénégal euh, ñu ngi fii ci leader ak leader opposition bi ñu amoon rendez-vous euh, fële ci siège yu bi nga xam te ni mooy siège yu pur waaye gendarme yaa ngi ko fees dellu ñu aye leen que siège yu Déthié Fall tam naki noonu donc ñu ngi fii ci mbeddu kër si dëkkër góor góor yi xamuñ sax fi si fu ñu ne ñu bàyyi ak soxna Aïda Mbodj moo wax ñu li nga xam te ni ñoom ñoom la ñu di si ñoom leader yi. asalaamaaleykum auzu billaahi mina sheytaani rajiim yeewi askan wi dañoo. am métit depuis ajjuma am lu dal ci seen kaw muy kenn ku nekk ci bokk ci ñoom diggu ci yeewi askan wi tudd président Ousmane Sonko moom dañ doon dal ci kawam di acharné wu ci moom ba li nga xam ne nag mooy daj dëpp gi nga xam ne fa lañ ko acharné wu euh, fa la fa fa lañ gën a acharné woo muy ajjuma bi nga xamee ni jiñ nañ ko sàcc mooy lu metti ci xol d'abord ci dégg-dégg ba ñu wëlbatiku tegal ko ci juróom-ñaari mbir yoo xam ni muy ay chef d'accusation loola ñu di ko topp ba démb ñu yendoondoog moom tribunal mu jëntul lu dul ñu ni dañ koy dugal kaso mu nekk lu diis ci yeewi askan wi donc lii nga xam ne ñu ngi ko def di ñu tox toxal ci ba ñu xëyee ba liggéey fa ñu jëkk daan rey ñëwee muy siège PRP ñu barricadé ko comme d'habitude tey siège pur mësuñu ko barricade tey ñu barricade ko tey loolu lañ ñu def ci seen seede nag yéen waaye dara mëntatee ñu taxaw dénoncer li nga xam ne moom lañu ñu teg Ousmane Sonko muy d'abord jàpp ko tëj ci tëj boo xam ni ñun convaincre ñu te dañ koy condamné di ko dénoncer ànduñu ci ndax lañ ko jëkk a sosal gannaaw bañ ko rajee ñu sosal ko tuumaal ko tuuma jooju dem nañ ba justice dindi ko mu demati ñu indil ko problème mu diffamation mu ngi koy topp pareegul ñu yàkkamti loolu teg ko juróom-ñaari mbir yoo xam ne mënut ci woon a rëcc ñu jàpp ne bu demee jugement dana dañ na la yeneen ya dañe woon demaguñu jugement diggante bi ñu sukkandiku ci loolu ba tas parti loolu nag muy metti ci démocrate yëpp ci àddina metti ci démocrate yëpp ci Sénégal ñun xàmmeetuñu ban Sénégal lañ nekk ñu di ñu nettali naan ba ñu ba ñu tasee parti booba ñun ñi gën a féete mag sax xàmmeekuwuñ ko wuñ ko kon loolu tey bu ñu demee ba Sénégal xeexu démocratie am fi bañ naan un petit pays avec une grande démocratie tey loolu dañ ñu mën suuxal luy démocratie ah kuy démocrate di nga am la naqare te ku yaakaar ni bokkoo ci nag ci nga bokk kenn xeexalul ma sàmba kenn xeexalul ma Demba démocratie la ñuy xeexal image réew mi la ñuy xeexal mais sunu bopp la ñuy xeexal parce que violence yi ñuy jiiñ Ousmane Sonko mais violence bi ñoom ñoo ko def ñoom ñoo ko def te ba léegi ñu ngi exercer violence lii ñu ñu def sax mënuñu egg ci sunu siège boo xam ne siège boo xam ne yaa koy fay mënoo caa yegg amoo foo toog ngay tol tolaan ci mbedd yi lii violence mënu ko weesu te teguñu ko fenn. bu doon ne dañ ñoo teg loo xam ne sax dafa tegu fenn wala ñu def dara à la mais kenn deful dara lu tax ñu di ñu teg li ñu nekkee ñun nag ñu ngi ànd ak Ousmane Sonko di massawoog moom bépp leaderu Yewwi Askan Wi ci sama kàddu mu ngi massawu usmaan Sonko di dend ak moom di massawu waa Pastef li ñu leen def du dëgg du yoon te nañu xam ne Pastef du parti boo xam ne dañ koy téye di tas ak di dajale état d'esprit la te état d'esprit bi mu ngi ci kenn ku nekk ci ñoom état d'esprit bi biñ ñu nee tas nañ ko la wër nekk ci kenn dépôt démocrate yëpp léegi état d'esprit Pastef Pastef pour un jour Pastef pour toujours. léegi soxna si yeewu yeewi askan wi yan matuwaay ak yan taxawaay lay jël ginnaaw bi nga xam te ni. lii commencement la ñu ngi continuer di concerté wo su ñu doon euh, euh, def ci gën sax dinañ mën a waxtaan. lu nit kalaat nag. parce que ñu ngi pare nañ ci Ousmane ñu ngi jëm ci yeewi askan wi démb rek Déthié Fall mii ak man menacé nañ ne dañuy attaqué sunu kër kay def loola nag du Ousmane Sonko kon nag bi violence biñ ko bëgg a féetaleel du moom.